dal nag jàmm gannaaw coow li ne ci liste parrainage yi Walf Quotidien dootul yàgg parti yeeg coalition yi daañu soobu ci campagne électorale ñeel lii di élection tànneefu député yi Walf Quotidien xëy di ñu faram-fàcceel yi war te opposition bi war ko mun a yëkkati ci bile campagne te yooyu le discours maanaam yooyu le kàddu mun na doon lu xel mun a nangu ay kàddoom ci Walf Quotidien Babacar Domingo Mané di analyste politique gis ne Abdou Sy Albert di analyste politique ay kàddoom ci Walf Quotidien wax ne ku jéeg bi bu ñu bëggee seen discours askan wi mun koo taataan faw ñu xamal askan wi la am yéene indi ko mu fas yéene doon doxalin gu bees ci assemblée nationale ak feneen ak feneen sociologue bii di Pathé Mbodj daal xalaat ne opposition bi faw ñu mun a xamal askan wi yàqum koppar gi fi nguur gi nekkee yéenekaay bi di ne bile ku jéeg moo xam coalition Yewwi kilifa yu bari yoo xamante ne dañ leen caa bedd kenn tudd leen ca liste ya bu yeewi askan wi parti bii di avenir Sénégal gi ñu bëgg gis ne dañ leen a war ci bile coalition yeewi askan wi bu dee bu Grand Yoff moom démissionné na jóge na ca coalition yeewi askan wi yéen kaabi di sursaane xultu baak maire ba foo ko natt weesu na ko ci bile coalition yeewi askan wi ak wàllu Sénégal Moustapha Guirassy jot na cee waxtaan ak Ousmane Sonko mi mu xamal Diop bu coalition Yewwi Askan Wi ne gisatu ci boppam ndax bu weesoo moom maître Moussa Diop amul kenn ku ñu fal ci ay jegeñaaleem ci source a maire bu Grand Yoff mi mere loolu ay ñoñam ci coalition Yewwi Askan Wi gomam la jël daal di gome boppam ca liste ya ne bokkatu ca génne na boppam ci Yewwi Askan Wi alerte quotidien xëy di laajte yéen kaa bi gis ne du Alioune Sall mi dooleem demeetul noonu ci coalition Benno Bokk Yaakaar te du honorable député mi jël retraite politique am alerte quotidienne du keneen ak keneen ca géejawaay gu mun a gàllankoor Ahmed Aidara ci yile woote jeune ka bi di la mandat xëy di fàttali ne Ousmane Sonko dayoo gamu amoon doole gamu jotoon a wone ci élection locale yi ñu weesu gàddu gox yu bari ndax bi yoon dina ko tollantiwaatam déet moom jiital liste coalition Yewwi Askan Wi jeune ka bi di l'info am taxaw seetlu ci assemblée nationale ga ñuy waajal jeune ka bi ne njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram mun nañoo daj lu metti ci bile assemblée ndax ci googule pencum daw réew mi boo tourné gis Ousmane Sonko gis député Barthélémy Diaz Déthié Fall député Aïda Mbodj député Guy Marius Sagna ba ci député Bassirou Diomaye fay wëlbatiku gis député Thierno Alassane Sall seen fa député Woré Sarr ba ci député Mamadou Lamine Diallo bu tekki ca wet ga nga mun fa seen député Pape Djibril Fall ak docteur Mouhamed Diallo ak ñeneen ak ñeneen yéene kaabi di l'info ne ñoom ñile bu ñu tegee seen tànk ci assemblée nationale mun naa doon lu wex xat ci nguuruk Macky Sall yéene kaabi di tribune dina jafe lool mu dégg honorable député moom Bougane Gueye Dany njiital gëm sa bopp listam mujjuta jàll ci parrainage bi ay kàddoom ci la tribune Yewwi dañu ne parewul ngir bàyyi ne dina weel xeexam ci géopolitique bi moom jiital gëm sa bopp ak waa jàmmi gox yi ne duñu bàyyee mbir yi noonu fas yéene nañu clamer ce dossier fu mbaxana doone benn daañu jébbal bataaxal itamit jawri ngi ñu denk wàllu kaaraange biir réew mi rawatina bataaxal dina jëm ci njiital direction des élections Bougane Gueye Dany ne yile élection dañ leen ko bugg xañ ci lu tegawul si yoon yéen kaabi di les échos jàll ci leneen du enveloppe bi nguur mu toll ci ñeent fukki milliards ak ñett njiitu réew Macky Sall fas yéene ko séddale ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen ginnaaw les échos ne googule koppar report yu bëree bëri daan ci cëru yéen kaa bi gis ne njiitu réew mi ma ngay dimbale askan wi ma ngay taxaw askan wi yéen kaa di Le Soleil ne ma nga ca programme transfert cash moom njiitu réew mi Macky lu toll ci ñeent fukki milliards ak ñett la fas yéene askan wi googule opération door na ko démb ci talaata ji te googule koppar ak ña ko yeeyoo njaboot gu ne dina ci am lu toll ci 80 000 francs yéen kaa bi di Le Vrai Journal ne googule koppar googule ndimbal yëgsi na ci waxtoom ñu bëri daan ci gis seen dund yéen kaa bi di réew mi quotidien tolluwaay réew mi xam le ne lii di pauvreté maanaam ndool gi mu ngi gën di wàññeeku ndax téeméer boo jël juróom wàññeeku na ca yéen a kaabi di direct news nemmeeku ne bu dee ca ndengaleer jafe-jafe askan wa amul lenn lu ca wàññeekoogum gannaaw coowal suuf ga dox ci diggante askan wa fa yeewoo ak Babacar Ngom bu Sedima ci direct news askanu ndengaleer ne ba tey jotaguñu suuf soosule munaguñ caa béy tey bu ñu deful ndànk ndool gu metti maanaam xiif gu méttee métti mooy yoot askanu ndengeleer yéen a bi di 24 heures xëyee dossier 94 milliards ak rapport ba ca OFNAC jukki daal di feeñal Mamadou Mamour ak kii di Tahirou Sarr ne lii day wane ne OFNAC jot naa déggal la ca Ousmane Sonko waxoon jiital Pastef ci coowal 94 milliards te mu tuddoon ca Mamadou Mamour Diallo ak ñeneen ak ñeneen yéene kaabi di Libération feelu ko des ak ñun ci bile rapport ak bu OFNAC mi fësal njuuj njaaj ak jalgati gu doy waar lool Libération gis ne banditisme d'état gu wér la ndax boo xoolee lii di coowal TFE bu R te ñu tuddoon ca Mamadou Mamour Diallo OFNAC mel ni lu déggal plainte rapportu OFNAC fësal na fraude fiscale ak ger gañu toppee Kabiru Mbodj njiital Wari ci googule rapportu OFNAC fës na ca maire bu Taïf di Mbaye ma doon jëfandikoo caisse municipale ba bu dee ca Vélingara maire ba ñu ngi koy toppee mbirum corruption ak jëfandikoo suuf sa nu mu ko neexee bu dee ca Mbour fu ñu tabax tey Auchan ba ak mbirum ger ga ca laxasu te mu ñeel équipe municipale ga fa newoon libération ne googule rapportu OFNAC dem na sax ba ci centre médico dugal mu jur waxtaan ndax ndam ko dugale ak feem yam ca àndal geneca bi di stade ne Sadio feelu ko dugalaat bi demb ci match gi doxoon ci diggante Liverpool ak Aston Villa te équipe bu Sadio Mané jëlee ca ndam geneca bi di suñu lamb ne mbër mi di Ama Baldé ma nga ca yoonu jël beneen mbër ngir mun a bëreek moom laata saison bi ji jeex bu ñu sukkandiko ci mag ja di Jules Baldé mi xam le ne xaaratuñu mooduloo geneca bi di l'observateur ne kawteef am ci dëkk bi di keñetoo jaaxa fare ca diwaanu Kédougou geneca bi ne gannaaw boolu cere gañ fa taaj mu doon reer waaye mujjee naa jural gàllankoor ña ko seq na ña ca jot a reer l'observateur xëy di ñu xaymaal ne lu toll ci fukki doomi aadama ak juróom-ñett ya seqoon yooyu le boolu cere ca keñetoo jànqa ñoom ñépp urgence la ñu mujjee gannaaw biir yu metti yañ ca doon jàmbat sapeur moo leen mujjee jël yóbbu leen urgence ca hôpital bu Kédougou l'observateur ne cere joojule ca diwaanu Kédougou police ubbi na ceeb enquête jombul ngir xam cere ja kan moo ko togg kan moo ko ñeex kan moo ko mooñ kan moo ko laalo kan moo ko siim ak yeneen ak yeneen